يا خليفة يا خليفة تيجانو يا خليفة يا خليفة تيجانو خليفة يا خليفة تجاه صحنك لسمان ير تاريخ بير شريعة بير يا يرنا يا تخ مي بجو ينمو ممود سيد نخاف jërë ngeen jëf Pape Malick Mbaye dégg ngeen ko loolu mu woy Cheikh Seydi Aboubacar Sy borom bonekaara bi mbokk yi gis ngeen ñu ngi toog ak soxna Umu Kulsum Mbaye mi le 25 mars gis ngeen ziar bu rëy bi ñu daan def fii ci Tivaouane ngir bi tey nag ñu ngi toog ak sunu yaay soxna Umu Kulsum information bi ni def dañuy bàyyi ñoom jox ko yaay booy Adja Fatou Ciss ñu ngi lay bu baax a baax waaw salaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamualeykum bokki Tiwaawan bokki région de Thiès département Tiwaawan commune de Tiwaawan tabarkaal elage li nga wax rek loolu la le 25 mars moom képp ku nekk nixmati ak ku dul nixmati xam nga ni bisu Sëriñ Babacar Sy radiyallaahu bu tedd bi ñu toogal daan ko màggal moom ak waa daayira bi yépp ñu di ko waajal waaye nag boo gisee lëf rek la fa tax tabaarkàlla lii ñu jóge muy mbas mi ñu ne moo tax dajewul fi benn yoon nit ñaa ngi woote naan le vingt cinq mars le vingt mars waaye bu ñu dakkalee daayira ak léegi ba ñu ko dakkalee léegi yàgg na ñetti daayira lañ fi def te ci daayira yi lañ daan dajale lu ñuy ziar ndax suñu ziar ñoo ciy defal suñu bopp lépp te kenn laajul kenn cotisation mm. te le vingt cinq mars feeg le vingt cinq mars kenn mënatu fee organiser dara mm. ci yaatalam ak ci bëgg njabootam ak ci ñeewantee njabootam moo tax ni comme laajunu dara te jamono xat na te dara fi ne yombul nan ko tëral ba na mu fekke yàlla nan ko fekke te wees ko te jàngoro ji yàlla jële ko fi ci barke yonent bi ci barke sëñ bi Aboubacar Sy yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def te sunu présidente yàlla ko fi yàlla bàyyi may ko gudd fan gu ànd ak wér sutura daay man ak njabootam ak suñu njaboot ak njabootu bépp jullit mbokk yi dégg ngeen ko mu ngi noonu sama yaay Fatou Ciss loolu la wax ci le 25 mars bi tey nag dañuy bàyyi suñu yaay soxna Umu Këlsom Mbay setu Seex Seydi Alxaaji Maalik boobu setu Seex Seydi Abubakar Si bi di doomu soxna Umu Këlsom borom waañ yaay booy ñu ngi lay nuyu bu baax a baax asubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi nuyu waa Sénégal yépp sant yàlla nag bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaanal yàlla nag Cheikh Sidi Hadji Malick Sy yàlla yàlla doole leeram ak leeru njabootam ñaanal sunu sëriñ nag sëriñ Babacar Sy yàlla yàlla doole leeram ah, li ñu fi indi rek benn bis la bis bi Sénégal yépp xamoon nañu 25 mars ci ndigalal sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amine dañ daan def ziar chaque année ci turu daayira bi hmm. ba yàlla dogal benn année bi ziar bi tombeeg 25 mars bi nu paree ba guddi ñu dem di ziar sëriñ Abdou mu ni jox naa leen 25 mars di bis bi seen maam wujjee woon boromam hmm. bu dikkee na ngeen daje def ci seen ziar ziar xabru bi. defal ko ñaan jàng ñaan bi ah bu ko defee ma wàcc ñaanal leen ba yàlla def ñu dajawaat mm-hmm. ah ñu di ko doxal ci ñoom nag ku ne xam na ni daaw dañoo waaj ba pare mm-hmm. yàlla dogal feebar bi ñëw kilifa yi joxe ndigal ñu mm-hmm. fomm ko ren ji itam daayira dañ ni daje ak dajale ñetti daje lañu fi daj def yàlla dogal feebar bi ñëw te siyaar nag dafa am lu muy àndal mm-hmm. moo tax daal mbokk yi di téléphoné mm-hmm. ak di laaj ziar bi mm-hmm. ñu wax leen ni ziar boobu daal fomm nañu ko ba yàlla mayaat ñu fekke waaye du tee nag insha allahu bu nu yàlla mayee ba nu um koor la 4 mai ci la ñuy daje pour suukaru koor si daan def suñu hàddiya bu nu koritee nag ñu démarré tuur yi ndax bu nu dajewul rek li sëñ Babacar daan wax mu ni daayira daje dajale mhm. bu ngeen dul daje seen daayira yàq mhm. bu ngeen di daje te du ngeen dajale li ngeen bëgg a def du ngeen ko def mhm. bu nu yàlla mayee ñu korité am na section bu nu bëgg yu nu bëgg a sam fu mel ni bu lay da dañuy samp section bi Batal dañ koy samp Thiès dañuy samp section mbarag lu xule dañuy samp section te sëñ Babacar da daan wax ni ku naaj téye ba doxi woo la ngay doxi bu naaj bi dalee sa soxla du faju mu hmm. ne ko taw tee doxi sa soxla bu taw bi sëwatee soxla sa du faju hmm. waaye buñ toppee feebar bi feebar bi nii rek toog li nu bëgg a def duñ ko def te boo lëgee lanu liggéeyoon ay at nuy rëcc hmm. bu nu yàlla mayee daal ñu korite ci jàmm dinañ def tuuri waaye la kaat me ci koor gi incha allahu ci la ñuy joxe suñu suukar koor di ñaan yàlla nag subhanahu wa moom bi nga xam ne kenn du buur ku dul moom mm-hmm. li fi nekk yàlla na nu xool ci sunu doyadi xool na ci sunu toroxlu ba jeexal feebar bi mm-hmm. yàlla na ko yàlla jeexal ci àdduna bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa na ko yàlla jeexal ñu mën a continuer suñuy programme bu nu demee nag ba insha allahu ñu def gàmmu Tiwaawan nag ba pare mhm. ñu seet bu nu mënee potoxlu ziar fi mhm. ñu ziar fi ndax xam nga gàmmu Tiwaawan bu paasee mhm. gàmmu soxna Umoo ngi fi ziar général a ngi fi gàmmu Ndar ngi fi bu fekkee xat-xat yooyu am na ñu bàyyi ziar bi ba yàlla mayaat nu beneen vingt-cinq mars ñu fekkee ko te ànd ak tal te buñ ko fekke waatee yàlla na dàq ni ñu ko doon defe di nuyu nag kilifa yépp jël nuyoo bi teg ko ci loxo xalifa bi mhm. ak njaboot gi mu jaboote yëpp mhm. di ñaan yàlla nag yal yàlla def ci réew mi jàmm yal yàlla def ci réew mi jàmm réew mi lëj na waaye yal yàlla def jàmm yal yàlla tàppe xol yi ni ko maam Abdou Aziz Dabakh daan ñaane yàlla def jàmm ci réew mi yal yàlla dalal ndaw ñi ndaw nag moo yaakaaru réew mhm. te yaakaaru réew du nax boppam Mm-hmm. te yaakaaru réew mi ak sunu yaakaaru ëllëg mooy sunu doom yi ak sunu sët yi mm-hmm. kon yal na yàlla dalal leen yàlla def ci réew mi jàmm mm-hmm. yàlla saxal fi jàmm ñoo ngi siyaar ñëpp di nuyu ñëpp di leen wax daal ni lii moo fànq 25 mars dafa gën te yàlla lu mu def ci jàmm dafa gën yal nañ ko fekkee waat ànd ak tabaarakallahu mbokk yi dégg mu ngi noonu kàddu yi nga xamante nii tabaarakallahu moom la soxna mu Këlsom Mbay joxe ci le 25 mars ñoo ko déggandoo waaye li ma ci gën a retenir mooy message bi mu dugal ci réew mi ak message bi mu dugal ci la jeunesse incha allahu rabbi soxna si ñu ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla defal nga dund téeméer ak ñaar fukk ci émission bi laa koy waxee sama yaay Sey Mbaye nee mu ngi lay sant mu ngi lay gërëm ndax defal nga ko teraanga boo xamante ni naa la ko santal ci barke Serigne Babacar si mbokk yi mu ngi noonu kon ni ñuy def dañuy bàyyi Pape Malick mu tëj li nga xamante ni mooy émission Pape ay bayla kala yaya yo daare wax leen kala sattu bayla kala yaya yi daare je kala yaya yi daare je wax leen sëriñ Abdu neena kala yaya yi daare je kala yaya yi daare je